asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa ngi lay nuyu di leen ziara di ñëw tey rek si benn secret bu am solo boo xam ne tey doomu bu nekk ak jafe-jafe boo mën a am maa ngi lay diggal nga def secret bi secret boo xam la ñu ko liggéeyee si suratul fatiha ñëpp xam ne fatiha mooy buntu lépp te nekk na mbir moo xam itam man lu si gën a samay soxla bop wala nit bu fekkee ne mi ngi am ay soxla ak soxla bu lu dis dis su ma ko waxee ñaareel lii laa koy liggéeyal si diiru une semaine kon lépp lu may def damay ñëw séddoo ko ay yéen yéen itam ngeen def ko lii xajul si benn soxla soxla boo mën a am moo xam soxla xaalis la moo xam soxla wér la moo xam soxla ubbeeku la wala kaaraange wala sëy sa sëy naqdi wala sa wala nga bëgg a sëy wala lu mu ti dem daal yow mi nga xam yaa am jafe-jafe boobu maa lay dëggal nga def lii incha allah kon nag ngeen déglu ma bàyyi ma xel bu baax si ni mu leen ko expliqué. Euh, parenthèse bu ma bëgg indi mooy ñi nga xam ne ñu ngi may laaj jaaro yi waxuma ne jaaro yi chaîne bi ak euh, jaaro bi dañuy ànd déedéet ndaxte chaîne bi ak jaaro bi nit am ko moo gën waaye bu fekkee ne bëgg nga bi kese bu la neexee mën nga ko am bu fekkee ne bëgg jaaro bi kese bu la neexee itam nga ko am bu fekkee da bëgg ñoom ñaar ñëpp itam mën na mën nga ko am ndaxte bu ci nekk day am xaatim si biir nekku ne ni nga ko gisee dang da nga koy takk pour rafetal rek bu la neexee mën ngaa jouer si bëtu nit ñi pour ni kuy rafetal mais fekk yaa ngi aar sa waaw wala yaa ngi bëgg ubbeeku wala yu demee noonu am na ñoo xam ne xaalis pire lañ bëgg am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy bëgg jaaro ñuy takk du am per amna comme ni ngeen gis ni seen écran li jaaru pire la amul amul per amul amul dara amna na si yoo xam ne nag day ànd ak eh, chaîne bi ak bi yëpp dafay am jaaro xaalis ak seenu xaalis ak lu mu mënti doon xaalis rek dafa baax nit di ko takk daf lay dimbale si lu bëri xaalis kese kese rek dafa dafa garaaw waxuma laa nga def si ay affaire si biir kon képp koo xam ne yittewoo na ko rek buñ jokkoo dinañ xool naka la ñuy def ba ngeen mën ko am ñu oyofal ko ba ku nekk mën koo jotee comme si anam bu ko bëggee incha allah kon tey secret bi mu leen di jox nii mooy secret Fatiha da nga koy commencé ba su alxames ba su li nga war a def mooy. Eh, da ngay toog yaa xam waxtu boo ko mën a talk baax na waaye da ngay toog jël sa nga def astaghfirullah cent fois def salatu ala nabi cent fois si bésu alxemes bi alxemes nga koy commencé alxemes boo jëlee sa da ngay def bisimilahi rahmaani rahim bisimilahi rahim nga def ko 313 fois nga ñaan soxla bi nga bëgg yow na yaa xam ban soxla la moo xam soxla sëy la moo xam diggante bu naqadi la moo xam eh, da ngaa am ko bëgganteel bëgg diggante bi neex xam da bëgg xam bu ko defee nga ñaan ko léegi nga ñëw si ajjuma boo ñëwee si ajjuma nga def alhamdulilahi rabbil alamin nga def ko 313 fois ba tey même soxla bi moom ngay wax soxla bi du changé nga def alhamdulilahi rabbil alamin 313 fois nga ñaan sa soxla nga ñëw si samedi nga def arrahmanu rahim 313 fois nga ñaan sa soxla comme soxla bi rek nga ñëw si dimanche ñëw si maliki yawmi din 313 fois nga ñaan sa soxla ba tay da ñew ci lundi iyyaka na'budu 313 fois nga ñaan sa soxla nga ñew ci mardi def ihdina sirata mustaqim 313 fois ñaan sa soxla nga ñew ci mercredi fofu mu lay jexé nga def sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin amin 313 fois ba tay même soxla bi mom ngay répété amul changé bo dee soxla sey la ngay wax wax sey bu dee ubbe la bu dee wërsëg la bu dee tukki la en tout cas bo xasse bu commencé jeudi ba ba mercredi chaque jour bo defé 313 ci lima wax sa ben ben soxla bi rek mom ngay ñaan nga def ko bam jeex inshallah rabbi bu neexee yàlla suñu borom soxla bobu dina faju nek na secret bo xamné bu ko kenn négliger def leen ko ngeen partager ko dimbale seen yeneen morom euh nek na mbir mo xamné ma sha allah ma ngi ñok fi bàyyi kon def leen ko ñu ngi yem fi ba suba jàmm inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh